lii lii lii lépp lii lépp lii lépp jigéen Sénégal jigéenu Sénégal fan yi passé <laughs> samedi passé dama def euh, euh, benn benn conférence maa ngi ko defee ci R100. ah ci fan yi ah samedi bi passé. mbaa gars yi campagne yi <laughs> waa mbooloo Fass Jom bu R100 maa ngi leen nuyu di leen ziar ma leen defal conférence di leen wax ni leen. Euh, weer wu nekk na mu tudd rek noonu la jigéenu réew ma di mel boo ca takkee soxna moo demee boo ci takkee soxna. soxna su baax lay doon day mën a mhm. de mai nga ko takk. loolu fi ñu ko bind. waaw loolu loolu lu baax la. Ah, mars nag boo ci takkee ku ci juddu day bari day mën a dox day dox rek. weeru tubaab mars xam nga weeru weeru weeru de mars laa judd te mënuma dox man ñu judd mars moom laa mënuma ñoo ñooñu foo leen fekk dox dox moom ñoo ciy toog. parce que jóge ci a jël la. <laughs> loolu dañ liggéey loolu sama waxu bopp farata la jaamu yàlla la <laughs> waaw ko bind laa bëgg wala sama waxu bopp ah, say waxi bopp la na leer léegi masala bi mu laaj eh. masala gi mu laaj ñu ñëw ci masala gi ñu ñëpp ñu déglu ah waaw dëgg la loolu sama waxu bopp la di du wax baax mi sama waxu bopp ah déet bu waxee taw leeral nañu ko ñu ko déglu sama waxu bopp la wala déet sama waxu bopp la léegi ñu déglu léegi bu ah, kii dafa yem nit ñun plateau bi ñu koy indi sax tey. man ku ko indi rek moo ñu tooy. man na ma dama bàyyi. wuyu ma Modou Diouf a ñëwul maa ngi koy nuyu di ko ñaanal. waaw sama yoon bi dina laaj boo waxee loolu. comprendre kay dañuy laaj nag dëgg. dafa laaj nga ni Didi bañ loolu. dafa laaj ni. jigéen ñi nga xam ne ñu téye seen bopp. ci sëy na dañuy sellal ci weeru koor bi. xam nga loolu seen jëkkër seen bopp xam nga loolu baam bi dafa bari ñoo xamante ni dañoo ëppal ci côté diine li nga lislaam c'est la paix l'islam jàmm la c'est la sérénité c'est le pardon l'islam dafa am fu mu taxaw te mooy sauver nit ki waaye l'islam du gaañ nit bu ñu nee la weeru koor ñëw na war ngaa xam lan moo ci sa devoir xëy na boo fi nekkoon di tundu baat bi asawmu lughatan bi lughal arabia al imsaaku niyati taabudi anil akli xam nga wa shurbi wa asyaani nisia nisaa yi day gudd du ngeen ko comprendre yéen waaye li am solo mooy ban heure laa war a arrêté li may lekk mais waa san foo déggee asalaatu xayrun mina nawmi lépp lu mu la fekkoon nga koy def mu jigéen na nga ko bàyyi action bu mu la fekk bu fekkee xamp li ma la wax de. bu fekkee yaa ngi nekk sa jëkkër rek. ok moo tax man la lépp lu la fekk yow ma jigéen parce que xam naa sa capable. Ah, ah. ay oustaz xamaloo ma dara nag. ah, ah déedéet parce que yaa ngi nii dama laaj naan. non dama lay laaj parce que parfois da ngay dégg ni li ma laaj ma laaj la ko. li waxu bandi non du waxu bandi. waaw kon question la masala la waaw d'accord bul wax ma dama laa wax bandi. waaw waaw kon lépp loo xam ni dox la diggante góor ak jigéen heure boobu bu dee sëy wala looy lekk wala looy naan nee nañ la dagg ko baam bi bu la fekkoon ci action action laa wax de nga dégg asalaatu xayru mina nun daggal lu ay sax Sénégal a yàqu rek mais affaire yi àggul saw Sénégal merci beaucoup xam nga loolu ëppal weesatul ngay bàyyi ba heure boobu loolu dina léegi beneen bi mooy mhm. heure ndog yonent bi nee na tasaxaru fay na fi soxori barakatun dee leen xëdd ndax xëdd dafa am barke mhm. kon ni ñuy xëdd ah, ah, bu ñu dee xëdd diggante boobu lu heure ba boo teelee yow lu ne xaj na fa te heure boobu du jot ban heure la arrêté mooy xurubu shams bu jant bi nëbboo su jant bi xasee nëbbu ñu ni dog jot na ci Dakar ak li ko war alhamdulilah googu boo ko déggee xam nga war ngaa dog yaa ngi dégg yàlla ni uxila lakum laylata siyaama rafasa ila laylata siyaami rafasa ila nisaikum dagalal naa leen guddi gi ah bu ngeen dogee ba pare nag am ngeen droit nag ànd ak seen soxna yi bu boobaa def leen lu leen neex mbaam bi dagan na ànd leen lu leen neexee dugg leen lu leen neexe yaa ngi nii mokkaloo allahuma la ko sumtu bu ma la ko tariloo woon fii teg portable bi doo doo doo tari digée ngi nii mokkaloo allahuma la ko sumtu waxal ma dégg waaw ah déet loo rek nga ci xam. alors ah yaa ma ne allah wala. Eh, di mu ngoog ah, li ma wax rek la wax li ma wax rek la wax de. booy booy dog looy doge looy wax di. yaa ma ne allah ma la ko sum. booy dog laa wax looy doge. nga ko xam. man moom xam naa ni am nga fa loolu tam daa koy xam moom ko <laughs> oustaz am naa question ah. waaw bismillah xam nga man hmm. damay damay laaj ci sama bopp hmm. certes booba temps majeur naa hmm. parce que bi may am douze ans maa ngi def CM2 sama maam Touré Mandi Mori yàlla na xippee àjjana euh, moo ma yar mënu woon or man yàgg ma mënu koor très mhm. sincèrement suñu waa ñu may setaan sama mhm. yaay mu ngi may dégg mhm. man dama mës a ragal xiif yàggu moon mënu or que dañ la wax ci charia ne boo ooree di wëccu sa koor dagg na te man bi ma nekkee xale heure moo ooraan damay wëccu ba pare tamit sama maam bëgg ma bëgg boo xam ne yemalewu ma ak benn sët wax dëgg fa yàlla am turément numéro te sama mag gi topp ci ma lañ tuddee sama maam Awa Senghor ma koy nuyu au passage hôpital Ndamatou su ma wooraan damay ñu ne ko maam damaa xiif wala wëccu naa dem ba ca frigo ndox dugg ci duus ba ne damay sawi daa di jël ndox mi ne xam nga wisoo jiw ma ko mu duggee naan su ma naanee toog suñu digg tris sama nijaay ñu ngi may saak sama yumpaañi <laughs> ma toog jeex boo jeexee loo reer démb ba tey eh. suñu waxee man la xëdd bi la léegi man oustaz naam nag loolu passé na quoi étant jeune fille la naam boobu majeur naa pour def ko léegi nag alhamdulilah wax dëgg yàlla mu ngi may dimbale maa ngi oor te ba sax nag du ma sax xëdd wax dëgg maa ngi sant yàlla ci loolu mhm. léegi man loolu noonu ma defoon sama jeunesse ñàkk mun oor ak di sàcc ndox ak sàcc ay lekk mhm. loolu yàlla daf ma ci bindal bàkkaar wala dama koy fay wala loolu passé na daal temps jeunesse la jërëjëf soxna Bambi ci question bu am solo boobu la boobule nga xam ne wax nga ko beneen bi ma lay njëkk a conseiller mooy dell xëdd yeneen bi nee na dee leen xëdd ndaxte xëdd daa am barke boo xam ne da cee ne te saxaru fay na fi suxuuri barakatun alayhi salaatu wasalaam nee na ni ñuy xëdd même bu doon da ngay naan ndox sax def ko ndax day yokk say tuyaaba yooyu nga xam ne nag ata étant jeune la boobu xale nga ñëpp a ci jaar temps booy ñëpp a ci jaar maa ngi gis rek benn groupe whatsapp bu ko doon def barki démb di wax temps booy ni ñu doon dugg ci biir mhm. ko doon def ñi xale dugg ci biir heure bu moom daan naa ñaari yoon ñaari yoon tekk bu dul weer ma du ma sangu ci de waaye koor gi ñëw ne foo jaaroon profité def ko affaire u xale da ngay xii affaire sangu sangu la noonu naan fa ndox yooyu moom mbiru mbiru xale la waaye boo demee ba majeur nag nga xamante ne nag leer na la majeur nga ah léegi nag période boobu moom ku woor te tay ko dog te tay ko charia mi ngi sa kaw mm-hmm. ndax l'islam moom dafa am position yi mu taxawee taxawee ñu doy waar yoo xam ne gis nga képp ku woor te tay ku dog te tay ko bam bi charia neen na nga kafaara attention gis nga moo tax yàlla ni kutiba aleykum siyaam kama kutiba ala alladina min qablikum laalakum tattaqun ayaaman maadudaat fa man kaane minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayaamin ukhar li muy tekki mooy boo xasee tawat ba yow ma jigéen bul woor da feebar bul jël risque ñu bari nag ñu ngi koy def da ngaa feebar suñu borom nee na teggil naa la woor bis boobu teggil naa man man ma jigéen daaw toog naa douze jours wooruma fukki fan ak ñaar j'étais malade te ku ma koowul doo ko xam daaw ma woor te kenn xamu ko mais damaa dem ci médecin ba mu xamal ma ne waruma woor ma dagg sama koor ba fay jotee fay naa. Mhm. léegi docteur bi na mënatoo woor na kooku tam da koy fay. xam docteur moo dem ba ne la yow mii. waaw da nga am ulcère kooku mënatoo woor léegi kooku yàlla da koy topp. wala jéggal nañ ko day génne muddu. moom laay wax moom mag ñi nga xam ne ajiz lañ. Mhm. dem nañ ba magal mënatuñu amatuñu kàttan gi. Mhm. kooku dañ koy génneel muddu maanaam chaque jour mbaam bi. nañ ko génnal valeur bu 1000 francs merci beaucoup Oustaz wala 900 wala 800. jërëjëf masala bi je pense que question yi ak leeral nañ. waaw andi nga ci ay leeral. mu ngi noonu amul ba amul lu des. déedéet leeral nga lépp. lépp jeex na am na bu des mais dañ koy bàyyi bii di ñëw. Ah, parce que temps bee ñu xoj moo ñu desee mu ngi noonu.